wanfacna bima callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy bàyyi xel ci jamono ji ñu fas yéene ànd ci waxtaanu suba si ko defee julit bi mën a gindeeku lenn ci diineem rawatina yow mi dund ci jamono ji xamal ne bés yi ngay dund xasanul basri am na lam la ci waxal rahimahullahu taala yal na ko buur yàlla gërëm qaala xasanul basri borom xam-xam bi di xasanul basri rahimahullah yal na ko buur yàlla gërëm yal na ko buur yàlla yërëm nee na ibnu aadama innama anta ayyaamun kullama zahaba yawmun zahaba baaduk nee doomu aadama bi de dafa war a xam ne moom bés yamuy muy dund mooy bés yi nga xamante ne moom la am ci dundam ba tax na bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne am na lu jógeekoo ci sa dund bi am na lu wàññeeku ci sa dund bi moo tax mu ne ibnu aadam yow doomu aadama bi innama anta ayyaamun xamal ne yow de dara lu dul bés ya ngay dund fan ya ngay dund yay ñëw di fenk nga di si xamal ne bés yooyu moom nga am kon nga déggee ci ne jaamul yàlla ci bés yooyu defal lu baax ci bés yooyu defal ci bés yooyu lépp loo xamante ne buur bi subhaanahu wa buur yàlla tabaraka wa taala dina la si gërëm ndax kullama zahaba yowman xamal ne bépp bés boññeeku ci bés yooyu ngay dundu xasanul basri nee na zahaba baaduk am na la jógeekoo ci sa dund bi am na la wàññeeku ci sa dund bi ba tax na loolu di wàññeeku ci sa dund bi yow doomu aadama bi tax na ñu fas yéene ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy lu ñu suñu yonent bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam ci axu wayjur ci doom axu doom ci wayjur tamit ñu àndandoor xool la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama baaxee askan bi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal xeetam ne noonu lañu war a comporté woo ak suñu wayjur yi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm nee na qaal abi hurayrata moo ñuy nettali xadis bi nee na jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya rasulallah man ahaqu nnaasi bi xusni saxaabati qaala ummuk qaala summa man qaal summa ummuk qaala summa man qaal summa ummuk qaala summa man qaal summa abuk muttafaqun aley mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xadis bi saxaabi bi di abi hurayrata radiallahu anhu moo ñu ko baaxe nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de daa am ab waay ba ñëwoon ci moom di ko doon laaj kon yonent bi dinañu gis ne ndekete saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain daanoon nañu laaj yonent lenn ci seeni dundin waaye daanañu ko doon laaj lenn ci seeni diine yonent bi di ko tontu kon yow mii xam-xam yow mii di imaamu gox bi yow mii di sëriñu daara ji yow mii di kilifa yi diine bi ngalla waaye da nga war a farankulaayu taaliba yi di la laaj nga may leen ñu di la laaj lenn ci seeni dundin rawatina seeni diine nga di leen di laayee biir ndax postir boobu nga taxawe postiru la fi bi bàyyi la sallallahu alayhi wa sallam nee na al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi de ñoo fi donn yonent yi ba tax na bu la yàlla wërsëgalee yenkee walla posture bi ni wara ubbi say buntu xàllil yoon nit ñi taalibe yi képp koo xamante ne am na yaakaar ne bu la laajee ci diineem dinga wara war mën a tegtal ci yoon bu mu war a mën a tegu ndax ki fi représenté ci place boobu nga toog en tant nitu diine kilifa bu toll ni yonent kilifa bu mag ba tollu ni yonent bi sallallahu alayhi daawul tëjal saxaaba yi buntam daawul bañ tontu saxaaba yi lépp lañ ko doon laaj kon nga déggee ci maana hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da buntu saxaaba ngir ñu di ko laaj lépp aju ci seen mbiru diine ba tax na saxaabi bi abi hurayrata radiallahu anhu nee na ab waay moo ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu daal di ko laaj ne ko yaa rasulallah yow mi yàlla man ahaqu nnaasi bi xusni saxaabati ana ci nit ñi kan moo yey ma rafetal jëmale ko ci moom yonent bi daal ko tontu mu ne ko sa wayjur bu jigéen moo tax mu ne ko qaala ummuk yonent bi bàyyi fi ñëpp tegtal saxaaba bi ne ko njëlbeenu doomu aadama ba nga war a rafetal jëmale ko ci moom du kenn du boroom xam-xam bi du sëriñ bi du ustaas bi du imaam bi du kenn ci nit ñi njëlbeenu nit ki nga war rafetal jëmale ko ci moom gën ci rafetal kooku mooy sa yaay waa ji daal di question bi ne ko summa man qaal summa ummuk waa ji ne ko gannaaw si kan laa war a rafetal jëmale ko ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko sa yaay ba léegi waa ji daal baamu question bi ne ko qaala summa man gannaaw sama yaay ana kan laa war a rafetal jëmale ko ci moom qaala summa ummuk yonent bi ne ko ba léegi yaay ba léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ànd ak waa ji waa ji daal ko laaj ne ko qaala summa man gannaaw si sama yaay ana kan laa war a rafetal jëmale ko ci moom ci nit ñi yonent bi ne ko qaal summa abuk gannaaw sa yaay sa pap xadis bi Buxaari ak Muslim dëppoo nañ ne xadis bu wér yàlla na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot xadis bi ñu war a déggee ci maana xadis bi maana yu bëri waaye ñu tënk ko rekk sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla yónni ci xeet wi ma yàlla woon la kenn gisul sallallahu alayhi wa sallam ma ci xeet wi moom mi yàlla xamal lu kenn xamul yan nañu ko buur yàlla fayal amin waa ji dafa ñëwoon ci moom sallallahu alayhi wa mu daal di ko laaj ana moo gën a yey ci nit ñi ngir ma rafetal jëmale ko ci moom mu ne ko sa yaay ba muy ñetti yoon ñu déggee ci maanaa xadis bi ñaareelu maanaa bi ba léegi ndekete wayjur bu jigéen di yaay dafa am palaas bu kawe ci doom ba léegi bokk na ci lañu war a mën a déggee ci maanaa xadis bi ndekete yaay bu fekkee ne doom bi téeméeru cër la am yaay ji moo ci ëppale baay ji ndax yaay ji am na fa lu toll ni quatre vingt pour cent kon baay bi moom dix pour cent la ci am donc ñu gis ne yaay la yonent bi tuddal góor gi ba muy ñetti yoon mu ne ko rafetal jëmale ko ci sa wayjur bu jigéen mu daldi ko ko baamul ñaareeli yoon mu daldi ko ko joxoñal ñetteeli yoon ba koy ñeenteel nag la ko yonent bi ne sallallahu alayhi wa sa wayjur bu góor ñu gis ne ndekete yaay da di jëmm joo xamante ne képp ku xam dayoom doo ko sàggane doo ko foowe au contraire da ngay taxaw ci yittim donte mag waajur bu góor ñépp la ndaxte boo xalaatee keroog bi nga gën ci àddina ana moo njëkk joxe ñam ba nga xamante ne moom nga taqamte ko ana ki nga xamante ne moo la njëkk a jox la jaar ci sa put wàcc ci sa biir du kenn ku sa yaay du kenn ku dul sa waajur bu jigéen mennum moomu de mooy ki nga xamante ne moola jox la nga xamante ne yàlla ci moom la jaarale la nga jaarale ci sa biir mu jóge ko ci moom kon yaay jooju mooy jëmm joo xamante ne yenentu bi sallallahu alayhi wa moom la fi joxoñal góor gi ba muy ñetti yoon ba ñeenteel nag mu ne ko sa waajur bu góor kon ñu gis ne ñaari wayjur yi dañoo yore maqaama ju kawe yàlla da leen jox maqaama bi nga xamante ne joxu ko keneen kon yow doomu aadama bi xamal ne munoo fi am leneen munoo fi am ñeneen walla keneen ku ëpp ñaari wayjur yi rawatina way jur bu jigéen kon mbokk bi léegi ñu gis ci maana hadis bi ndekete waajur bu jigéen moo ëppale waajur bu góor ci doom ci àq ndekete waajur bu jigéen moo ëppale sëriñ si doom ci àq waaye ndekkee waajur bu jigéen moo gën a ëppale la nga xamante ne mooy keneen ku moom ci doom ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadiisu abdullahi bun abbaasin radiyallahu anhu nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa qaal ixtanim xamsan qabla xamsin abdullahi ibnu abbas radiallahu anhu nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee góor góorlu na nga juróom yam la wax ni lu jiitu juróom yi di dikk mu jiital si ne shabaabaka qabla haramik na nga wattu sa ndaw laata màgget di la dikkal mu ne ñaareel bi mooy wa sixatuka qabla saqamik na nga wattu sa wérgu yaram lu jiitu wéradi di la dikkal ñetteel bi mu ne la wa xinaaka qabla faqrik nanga nga wattu jamono bi nga amee koom-koom lu jiitu ñàkk di la dikkal ñeenteel bi mu ne wa faraagaka qabla shughlik na nga wattu sa jamono ba nga amee jot lu jiitu ñàkk jot di la dikki juróomeel bi sang bi nee na wa xayaatak qabla mawtik wattul jamono bi nga nekk di dund lu jiitu dee di la dikkal xadis bi xadis bu wér la axrajahu albani fi saxiixi targhib mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xadisu abdullahi bun umar wala xadisu abdullahi bun abbas radiallahu anhu nee na bi sallallahu alayhi wa daa bëgg yow jullit bi nga xamante ne yaa nekk di dund ci àddina si ngela waay na nga la nga xamante ne mooy la lay waaye nanga nga muytandiku loo xamante ne amul la benn njëriñ yonent bi daal di la préparel calendrier ya nga xamante ne juróom dong la la ci andil ndegem wattu nga juróom dina la musal yeneen juróom yay gàllankoor lala la yonentu juróom yam la wax ni nanka wattu su ko defee juróom yala war a gàllankoor duñ la mën a gàllankoor gannaaw bi nga wattoo juróom yàlla yonentu bi ne wattu ko su ko defee yeneen juróomi bu ñu ñëwee duñ la mën a gàllankoor mu jiital si ne nanga nga wattu juróom yama la bëgg a wax ni laata yeneen juróom ñii di ñëw di la andil empêchement mu jiital si sama mbokk jeunes yi yaa xam xale bu góor nga yaa xam xale bu jigéen nga yonent bi nee na la sallallahu alayhi wa sallam waay nang ma wattul sa genes lu jiitu màgget di la dikkee jamono bi nga nekkee ndaw na nga fonk sa ñaari waajur jamono bi nga nekkee ndaw na nga faale sa ñaari waajur yi jamono bi nga nekkee ndaw na nga sàmm sa ndaw jooju nga nekkee lu jiitu màgget di la dikkal ndax jamono bi nga nekkee ndaw fa nga war a mën a topp yàlla waaye fala la seytaane soxla fala la àddina soxla buñ ne yàlla fala la soxlaa nag mooy lépp loo xamante ne borom bi sopp na ko te gërëm na ko fala la yàlla soxla buñ ne fa la la soxla mooy mooy yàlla yi nga xamante ne dañoo déppoo ak banneexu bakken ana kan ngay jox sa jëmm ji buñ ne la jamono bi nga nekkee ndaw fala la àddina soxla mooy xeetu bànneex yu mel ni jigéen bu dee xale bu jigéen nga lu mel ni xale bu góor lu mel ni alal lu mel ni objet madiya objet àddina yi ci lañ lay soxla wala yowit fa ngay bëgg yooyu matérielu àddina jamono bi nga nekkee ndaw ci nga koy bëgg waaye matériel yooyu noonu tamit jamono bi nga nekkee ndaw ca la ñuy song sa jëmm ji yàlla bëgg na sa jëmm ji bi nga nekkee ndaw seytaane bëgg na sa jëmm ji bi nga nekkee ndaw waaye àddina bëgg na sa jëmm ji bi nga nekkee ndaw ana kan ngay jox sa ndaw moo tax sallallahu wa sallam ne la wattul ma nang ma réserver jamono bi nga nekkee jeune lu jiitu màgget di la dikkal ma bëgg laa wax ne jëlal sa ndaw sa jeunesse jëlal lépp wala jëlal lu ci ëpp jox ko yàlla lu jiitu màgget di la dikkee tënkil sa bopp kullu fii ma yuhibbuhu wa yarda ngalla waay yow sama frère ngelawaay yow sama sër jëlul sa jeunesse bi dénk ko yàlla mooy li wuur seytaane bañ laa këf àddina bañ laa këf su ko defee nga dénk sa jeunesse bi ku jara dénk mooy fu wuur ñaareel bi yonent bi ne la wa sixataka qabla saqamik wattul ma nang ma réserver sa wirgu yaram lu jiitu feebar di la dikkal jamono bi nga amee wirgu gu yaram jëlal sa wirgu yaram exploité ko fépp fu yàlla sopp mu doon fu mu gërëm lu jiitu feebar loof lompoñ di la dikkee ndax feebar bu la ganese dootoo am cawarte dootoo am envi dootoo am yëg-yëg su ko defee ñàkk kattan néew doole loof ak lompoñ moom ngay dund moment boobu noonu nag dinga mébét wirgu yaram bi delsi ba nga sujuudal yàlla donte benn sujuud la ndax foofu nga tëdd noonu yaa ngi dégg noo doxa yàlla salaa mënoo jóg dem julli yaa ngi dégg noodu noddukat bi naan asalaatu xayru minan nawm munoo jóg dem julli boo ko waxee ak boo ko waxul mébét bay nekk sa xol leen na la nit ñi xam ko walla ñu bañ koo xam muy bat mébét sama wér gu yaram bi de bu ma ko yàlla dellase nodd bi may dégg ni kenn duma jiitu ci jàkk ji waaye day fekk ne nag jamono bala yàlla dénkee wérgu yaram am na foo ko doon jëfandikoo fu fa yàlla sopp ba tax na yonent bi avertir na la ne la nang ma réserver sa wérgu yaram lu jiitu wéradi di la ganise su ko defee ñu déggee xadis bi noonu ñetteel bi sallallahu alayhi wa sallam ne la wa xinaaka qabla ndax àddina de comme naka gaa yi di waxee àddina bul la bul bi nga xamante ne day tourner toogul wenn place àdduna potu ndaal la tey boo naanee ni mu yàgg-yàgg di nga ko jox sa morom moom it mu guux si ba tax na yonent bi nee na nang ma réserver jamono bi nga amee koom-koom jamono bi nga woomlee jamono bi nga nekkee recharge jamono bi nga riche jamono bi la yàlla maye alal na nga faale njabootu yàlla ne yàlla atti ñoom ñàkk na nga jël sa alal dépensoo ko fa yàlla sopp lu jiitu ñàkk di la ganise tey àddina jël na alal ci sa morom dënk la ko dang ci war a jëfee la yàlla sopp lu jiitu ñàkk di la ganese ku la ne ci am am jooju nga nekk fa ngay de ku la ne li jiitu ngay de ñàkk dina la musa ganesi lu la ci wóor loo ci xam dara lu la ci wóor dara kon ndegem mbir bi noonu la demee war ngaa war a mën a suuraale la yonent bi ne sa alal di ko dépensoo si jàkk yàlla yi di ci dimbale njobootu yàlla ya miskin di ci dimbale njobootu yàlla yi yàlla tudde alfaqir di ci dimbale njobootu yàlla ñu tudd lyetiim di ci jokk mbokk di ci def lépp loo xamante ni yàlla gërëm na ko mu doon lu mu sopp ndax loolu moo gën lu jiitu ñàkk di la dikkal bés bu la ñàkk dikkale mébét ba ngay am ci sa xol bu ko nit ñi xamee ak buñ ko xamul mooy ne aka neexoon la ma ñàkkoon ma yorewaat ko ba ma ciy def lii di ci def laye di ci def laa fekk nag béy wéy na mbuus moo ne joxoon nañ la ko waaye danga ko doon pasar pasare di si noos di si jëf loo xamante ni yàlla sopp ko gërëmu ko bugg ko ndegem yonent bi mu ngi lay avertir jamono bi nga woomlee jamono bi la yàlla maye alal ngel la way jëlal sa alal bi nga di ko dépensoo fépp fu yàlla sopp mu doon fu mu gërëm lu jiitu ñàkk di la ganise ndax wóorul balaa ngay faatu amaana ñàkk mën na laa ganise xamoo ci dara ci coobare yàlla la yàlla dénk la nga yor mu jëlee ko ci keneen jox la ko mu di la xool kon nang ci def lépp luy soob yàlla nang ci def lépp lu yàlla gërëm lu jiitu muy àtt ci yow ñàkk moo tax sallallahu alayhi dënk la mu ne la nag ma réserver jamono bi nga nekkee ku am jamono bi nga woomle jamono bi nga amee koom-koom na nga sa koom jooju yalla dënk la lu jiitu ñàkk di la ganiser mbokk yi bi léegi ñu ngi leen di fàttaliku yi na ngi ànd ak réew mi FM 97.5 ci waxtaanu suba si ñeenteel bi yonentu bi ne wa faraaxaka qabla suxulik nang ma wattul jamono bi nga amee jot jamono bi nga amee temps nang ma réserver waxtu boobu lu jiitu ñàkk jot di la ganese jamono bi nga amee temps del joxe waxtu yi del jokk mbokk del def sa temps boobu yàlla dogal nga am ko lépp loo xamante ni yàlla gërëm na ko mu doon lu mu sopp lu jiitu ñàkk jot di la ganise ñàkk jot di xat-xat problème ñàkk mën a dem ak ñàkk mën a dikk bu la ganisee boo ko waxee ak boo ko waxul bu ko nit ñi xamee ak bu ko nit ñi xamul la ngay mébét mooy aka neexoon ma am jot moone amoon nga jot daawoo ci jokk mbokk moo ne amoon nga jot daawoo ci jaamu yàlla moo ne amoon nga jot daawoo toog di fàttaliku yàlla moo ne amoon nga jot daawoo fa toog di jàng alquran donte benn xisib la wala fukki saar yu mujj yi lu ko tàmbale alamtara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil ba keroog ngay àgg qul auzu bi rabbin naas fukki saar yu mujj yi doo musa toog ba nga ne xaaral ma répété ko jàng ko boo ñàkkee jot yëpp da nga koy mébét moo tax yonent bi ne wa faraaqaka qabla sugulik nang ma réserver jamono bi nga amee jot jamono bi nga amee temps lu jiitu ñàkk jot di la ganise ndax ñàkk jot bu la ganise mooy dootoo fi nekk di def dara ndax temps bi jeex na juróomeel bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mu ne la wa xayaataka qabla mawtik jëlal sa dund bi yëpp nga consacré ko fii ma yuhibbuhu llah wa yarda fu yàlla sopp mu doon fu mu lu jiitu dee la dikki ndax dee bu ganese moom mooy min baytika ilal maqbara dañ lay jëlee sa kër yóbbu ci bàmmel yi su ko defee sa dund bi daal di jeex kon jamono bi la yàlla bàyyi fi ngay dund jëlal sa dund xupp ko suuraleel yàlla ci sa dund jëlal sa dund nga consacré ko fépp fu yàlla sopp mu doon fu mu gërëm mbokk yi waxtaan bi jeexagut dañu yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a dikkee bërëb bi joxe xibaar ci nasaraan ñoo ngi ni taxaw ñu di leen jébbal bërëb bi ñu ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahuma aminna fi awtaanina wa aslih aimmatana wa wulata umurina allahuma ihfaz biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baraka allahu li wa lakum fi alquran alazim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu